waa salaamaaleykum mbokk Sénégal waa tey le 27 février 2022 euh, bés ni ki tey 27 décembre deux mille 2022 le président de la république taxawoon jëm ñaajo mi ne impact terre bi euh, dina topp seen problème su ko dernier cas fu ñu régler ko dans deux mois loolu dina féetee ginnaaw tey le set février ba instant bi may wax yooyu suñu problème ba léegi kenn réglé wu ko te impacte yi fu mu nekk nii kontaan nañu parce que seen problème ba léegi ça demeure léegi nag décidé nañ jox un ultimatum à l'état du Sénégal d'ici peu duñu leen wax sax délai bu fekkee ni problème bi avancé wul réglé wuñu suñu problème paiement vulnérabilité perte de revenu locatif yi ak aménagement terrain bi mu gaaw parce que fañ ci tolloon ba léegi fa nañ toll danañ ak commission yi ba léegi réglé wuñ ko dans les jours à venir dinañ gis impacté yi dañ commencé di voyager ci terre bi te décidé nañ nag ñun ñëpp ñu ànd di voyager ci terre bi incha te ni ñuy voyager ci terre bi defe naa ni du bokk la comme yeneen voyage yi dinañ koo décider voyager ci terre bi incha allah.